Aja wailin wai darul rahman bi aja. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم يسر لي كل أمر عشر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wax bismillah pour ñu commencer sun darsul awal mooy darsul bi nga xamante ne moo njëkk si la qiraatul arabiyya moom la ñuy njëkkee jàng moom la ñuy njëkkee muy qiraatul arabiyya mu ne qiraatul arabiyya lum bi moo nekk la arabic reading arabic reading dafa uti ak ñu ne lugatul arabiyya su ñu waxee lugatul arabiyya boobu lan la laaki arab arabic language dafa uti ak qiraa su ñu waxee qiraa lan la read sila arabic parce que luy xadaf bi mooy lan si lii la ñuy jàngee mën a xam naka dañuy riidee si arabic quran dinañ ko mën a lan riid quran dinañ ko mën read. lan riid quran lan la lugatul arabi lisaanin arabiyyin mubin yàlla mu quran quran arabique parce que quran arabique dégg nga léegi lii nii li ñoo ñoo jàng tey moo nekk la xuruful hijaiya xuruful hijaiya wax leen xuruful hijaiya xuruful hijaiya moom mooy darsul awal si alif ba yaa alif ba yaa léegi nag bi ko ñëw jàng su ma ko jàngee da ngeen a bàyyi xel du ma ko waxee ngeen waxee ko noonu mafhum naam aywa المادة المادة القراءة العربية القراءة العربية الموضوع الموضوع الحروف الهجائية الحروف الهجائية الحروف الهجائية الحروف الهجائية الحروف الهجائية الحروف الهجائية أيوة وهلا الحروف الهجائية الحروف الهجائية طيب لكن دعنا نجاوبنا كما مباشرة في حروف ألف ألف باء باء تاء تاء ساء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دل دل Zellun. Zellun. Ra'un. Ra'un. Zayun. Zayun. Sinun. Şinun. Şin. Şinun. Sadun. Sadun. Dadun. Dadun. Ta'un. Ta'un. Za'un. Za'un. nga xamante ni doo arab si doo ko fekk Qur'an si Qur'an nag la yaayin bi am dina fa lay nekk waaye bi dee ñu ko dee feeñal daf ko bind bu rëy waaye lan la yaayin nag pour fi ko gis nga xam ne lan la yaayin léegi dañ koo répété daal ko répété ah, ñu soog المادة المادة القراءة العربية القراءة العربية الموضوع الموضوع الحروف الهجائية الحروف الهجائية ألف ألف باء باء تاء تاء ساء ساء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دل دل ذل ذل راء راء زاي زاي صاد صاد léegi man yastati' minkunna an taqra ad-dars hmm? kan moo mën a jàng dars bi aywa legreño si blackboard ini, dégg su si blackboard ini, luñ jàngoon fii si huruful hijaiya moom la ñuy fekkaat fii dégg waaye bii dañ wax la bi duuni tartib moo nekk la ara ñiñ ko according bi comme nu mu nekkee si bii nii parce que ko tartib bii nu mu toppalante pour mu neex a jàng waaye bii ko jaxase parce huruf ini lu mu soxla léegi nii soxalul pour ko xam ni moo jaxase ko nii ñu war koo jàngi la te jiw nit dara bi dégg nga léegi ñu jàll al hurufu al hijaiyatu al hurufu al hijaiyatu biduni tartib biduni tartib alifun alifun baaun baaun jiimun jiimun dallun dallun Amen.